keroog bi ñu ñëwaat suñu darsu tay bi ñu dugg nag ci lan mooy wasifa génnoon nañ ci lan mooy wirdo Seydi Hajji Maalik radiyallaahu taalaa nee na fi bayaani azkaari allaazimati lil wasifati leeral zikar xam nga zikar mag ñi dañ koy lisimal zikar zikar rek lañ koy wax zikar dafa bëri ay prix moo tax zikar dafa bëri ay prix dafa nekk baat boo xam ne ji parce que yow soo na zikar mooy fàttaliku yàlla am na koo xam ne ci musul fatte yàlla ni ko yonent yi musul ñoom fàtte suñu borom ñooñu zikar yow li nga tuddee zikar ci ci yow du ñoom mooy seen zikar ñoom wali yi bi nga xam ne tamit musul fàttaliku yàlla musul fàtte yàlla kooku sa zikaram du zikar tudd lañ koy wax tudd rek tudd yàlla nag amul kenn ku àgg ci maqaama bañ koo def moo tax ñu naan ala bi zikrillahi tasdaadu zunub maanaam dem bay fàttaliku yàlla day mel ne da nga koo fàttali ko fàttee ngay fàttaliku te fàttee yàlla jaaduwul loolu nag ci ña ëgg ci néew ba la maanaam ki ngay fàttaliku dafa fekkoon nga fatte ko xam na tàñ nañ boole amee nga ne ah fàtte nañ diw kat ñu woo ko dafa fekkoon nga fàtte ko sa xel moo ci génnoon mais est-ce que nit war naa toog benn cersa xelam di génn ci suñu borom subhanahu wa taala mag ñi nag ci niveau boobu ci niveau yi ci niveau yu suufe yi lan lay yëkkatee yóbbu la ci niveau yi gën gaa gën gaa kawe dem ba àgg ci yow fii qulubihim sakina sa xel bi sa xol bi day dal dal goo xam ne ci dangay àgg fa ci fi maqaadi sidqi indal ki toog ci suñu boroom subhanahu wa taala boobaa nag da ngay lab te dañuy wax na ku xas ba lab amutoo ku lab ci géej gi looy looy looy defati dañ lay manipuler rek yow soo wax. mooy waxu ki labal ci ki nga labe labe mooy sa waxu waxu suñu borom la mu baax nag yow daanaka amutoo def amutoo dindi suñu borom mooy def mooy dindi te yow moo tax nag même niveau bu ngay dundee ngay ngay ngay ngay dund niveau def ak dindi kooku suñu borom la nit dana ko nit nag pour muy àgg ci niveau nag gëm loolu di ko dund nag loolu nit yàlla moo la fa mën a yóbbu nit nit tamit pour nga mu àgg ci niveau doo fàttaliku doo fàtte mukk suñu borom laqad daa umru saatun min u tustara bi mil i sama wal ardi ayata dayati sa sitaaji maa nee na cersa bu nit toog benn cersa seconde fàtt tuddoo yàlla nee na sànq nga àdduna li ci biiram laa ilaha illallah min u samawati wal ardi tiyaabaam day fees asamaan ak suuf léegi yow tiyaaba bu fees asmaana suuf nga topp nga benn ceet sa waxuloo ko benn laa ilaha illallah léegi yow perte nga lu tolloo a suuf kon yow perte nga loo xam na ci mënutoo ko am si dund ndax bis bu la xasaraw rek yow pare nga ci lil wasibati nag ñeel wasiba wasiba waxoon na leen ne ko mooy wareef al muwaddaf su ko ara waxee mooy ki nga xam ne ci fonctionnaire la dañ koo jël mu nekk fonctionnaire nag fonctionnaire nag day xëy dem bureau ñu dajee ci bureau bi wasifa nag ci mbooloo lañ koy defee cungante amul dana ñëw ci biir téere bi radiallahu taala mag ñi daanan daanan dund liggéey di sonn waaye nag mbalaanu wasifa moom dafa fokk dafa fekk ci loo dafa bokk ci loo xam ne moo leen gënal lépp lu mën di am ndax jotaay bu tol ne jotaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jotaay bu toll ne xulafaa wa arbaa jotaay bu tol ne Cheikh la كوكاي ووتي والله العظيم خمولو لو خيو ها كو تولني يوننتي بي جوتايام كوكاي ووتي خمولو لو خيو موتام نا عمل وظيفه بلا انكار لها 30 من استغفار دا دامي فرال دي واخني بيب تور يالا بو ذكر سودون ذكر تيميري مليون جوني سي صلاه الفاتحه بات بربيس تودو ديم سي مبلان وظيفه وي juróom fukki salaatul faate yooyu nga jàng ci malaan wasi moo ëpp téeméeri junni salaatul faate boo jàng parce que loolu ndigal la bu jugee ci yonent bi ñëw ci Seexul Tijaan te lii nga def ni du sa ndigal sa coobare bopp nga ko defee te jaamu yàlla ci ndigal lay dépendre ndigal moo ëpp doole lépp lu mën doon amal wasifa ndaal wasifa nag bilaa inkaari ci loolu beneen werante laha ñeel na ko salaatuna fanweer min istixfaari ci astaghfirullah al azim alladi laa ilaha illa huwa al hayyul qayyum sooy wasifa nag am loo duraa naan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah alqayumiya moom ngay sañ a jàng lu jar a bàyyi xel la am loo duraa ne damay nekk sama biir néeg damay wasifa sama course rek yàkkamti naan naan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah alazim alladi laa ilaha illa huwa alxayu alqayum nga sañ a jàng fekk wér na nag waxoon na la su la neexee nga jëf beneen istixfaar waaye li gën moom ca wér na wa tamit mooy astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah salli nga na nga julli salaatal faatixi salaatal faatixi xamsiina juróom fukk soo paree ca astaxfar astaxfirullah azim alladi fanweeri yoon nga def juróom fukki salaatu faatixa xamsiina juróom fukk ala nabihi ala nabiyi ci ku ñu solo gi nabiyu ñaari pir am na piri nabawa fekkee nabawa la mooy fi nabawa mooy firi ku ñu solo ama yata sa ama yata saaluuna an nabi al azim nabawa bi firi tund tamit dañ fa jógee mu yonent bi ni tund tiimee mboolem suuf si noonu la sallallahu alayhi wa sallam tiimee mboolem mbindeef bu yàlla bind almujtaba ku ñu tànn ka yaasiina mooy ki nga xam ne ci mooy yaasiin mooy ci turam yi bokk mooy sallallahu alayhi wa sallam léegi nag salaatul faatee mii tamit wax ci kanam na amuloo droit tamit wattee ko beneen salaatu xam nga sooy wirdo salaatu faatee su neexee nga defaat beneen salaatu bu dul salaatu faatiha beneen salaatu ala nabi moom ba di def rek ci wirdo baax na waaye wax nan la tamit ci wirdo walla na salaatu faatiha moo ñu gënal ñu ñu waa tariixa bi Cheikh na Tidiane yi waaye nag ci wér ci biir wasifa nag amuloo droit wattee salaatu faatiha beneen salaatu ni nga xamee ne amoo droit wattee astaghfirullah azim alladi laa ilaha illa beneen istighfar wa na nga def laa ilaha illa mi atan téeméer tahlilan wahlila na nga na nanga na nga zikar ba tey mi atan téeméer tahlilan ci laa ilaha illallah maanaam soo paree ci juróom fukki salaatu faate yi nga def la ilaha illallah téeméeri yoon soo ko defee taxus da nga làq jazaan fay goo xam ne mughniyan yu bu doy sëkk la jalilan gu feeñ dàng la ju ju ëpp lépp la maanaam parce que zikar lépp nag mi ngi tënku ci la ilaha illallah ah afdalu zikri borom innovation wax abdul wujudu zikri mooy kalimatu laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah nag salaatu ngi ci biir istighfar mi ngi ci biir parce que li ngay zikkar lépp ci la ilaha illa allah nga jëm xamoo istighfar bi pour sa xol mën set la ba nga mën a àgg ci yonent bi soo defee astaghfirullah azim alladi fanweeri yoon sa xol bi raxasu ba set nga mën a àgg ci yonent bi ndax ku bëgg dem ci yàlla force nga jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boobaa na nga julli ci yonent bi juróom fukki yoon soo jullee ci yonent bi yonent bi ma naan la cas na la yóbbu la sànni la ci suñu borom boobaa na nga naan laa ilaha illa allah waaye ki la indi ci suñu borom nag lan nga lan nga ko def nga wanee ko waat nag santaat yonent bi julliwaat ci moom mu waral nga defaat juróom fukki fukk ak ñaar ci jawharatul kamal nga taggee ko yonent bi sallallahu alayhi أنا أنا محمد أنا أنا أنا سيدنا محمد أنا أنا أنا ترو محمد أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا ينون تبلا صلى الله عليه وسلم وقو بوخم ندن كو جوخ شخنا تجاني شريف رضي الله تعالى عنه اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانيتي ها وليأخذني متحقق حائتي في مركز الفهوم والمعاني yaa ngi dégg Cheikh na Tiyaani firi na ko firi yu doy waar nga xam ne ci kenn xamu asara asara ta topp nga def fukk ak ñaar fi kamaali ci mat sëkk hmm? ci kamaali ci mat jang boo xam min jawharatil kamaali ci jawharatu kamaal topp nga def fukk ak ñaar gis nga nag fil kamaali dafa am ay déggin yoo si war a dégg dafa am ci njëlbeenu fukki per lan daan wasifa ak jawatu kamal ak benn bu njëkk ba fukki per ak benn lan daan wasifa gannaaw gi nag lañ ci dolliwaat beneen per muy fukk ñaar moo tax mu ne na nga ko matal mu nekk fukki per ak ñaar fi jawharatul kamal yi ñu ne déet maanaam jawatu kamal tamit soo koy jàng tamit amuloo droit ñàkk am laab gu mat sëkk laab gu mat sëkk nag suñ ko waxee mooy laab gu matal sa loxo bi tey su amoon gaañu gaañu nga bànn ko masaa ci kaw am loo droit jàng ci jawharatu kamal moom njàppal naa xis kenn sañu te jàng jawharatu kamal taxarutul kaamiliya lay doon ci sa yaram makkaan bi sa yére lépp dafa war a laab te laab gi du nekk laabu bu bu wàññeeku ba laab dafa war a mat sëkk waa ma amal murid nag war na aji bi in lam yakuni nem nekkut yaxfaduhu di ko wattu maanaam yaxfaduhu nag dafa bëri tamit loo ci mën a déggee maanaam fekkee ne yow man nga jawratul kamaal mokkal nga ko man nga ko mën nga ko tari mais am na ngant lu la dab maanaam yow am nga ngant lu la dab ba mënuloo jàng jawratul kamaal benn amuloo ndox da ngaa tiim amuloo droit jàng jawratul kamaal yaxfaduhu mën naa firi tamit soo ko mokkulut amuloo droit mënu koo jàng yaxfazuhu sol sa laab sa matut amuloo droit jàng jawatu kamaal benn benn gàllankoor bu la gàllankoor rek boo xam ne ci dalay tere jàng jawhatu kamaal day dugg ci yaxfazuhu yaxfazuha la daa jamiil am am ku ci mboolem jamono makkaan yi maanaam bu mu mën di doon rek dafa war a nekk loo xam ne danga ko mën a wattu sa sa yaram si sa làmmiñ lépp mën ko soo mokkulu jawharatul kamaal nag bal li fi nekk moom di lu nga koy wattee min haa si jawharatul kamaal bi maa ci la nga xam ne xar sa dëgg yasura dafa jàppandi ci yow mooy nga def sa min salaatin ci salaatu fatiha taarikan nga bàyyi maa asura la jafe ci yow te mooy salaatul jawharatul kamaal jafe na ci yow jafe gi nag mën naa nekk ne sa laab moo la mayit nga mën ko jàng jafe gi mën naa nekk ci yow tamit da nga koo mokkulul soo boobaa nag li ñenn wax naa da nga koy bàyyi ba mokkal ko loolu amul jawatu kamal soo ko mokkalu da nga koy wootee fukk ñaari fukki salaatu fatiha dana ñëw ci kanam léegi nag am na benn bayit boo xam ne ci soo demee ci yeneen téere yu ci bari ci fàkki tulaa bi indiwu ko mooy xayru salaati fatihin la yakfi fii al wadifati bi duni xulfin xayru salaati fatiha lu dul salaatu fatiha laa yakfi du doy min al wadifati ci wasifati ci wasifa bi duuni xulfin ci lu bennu benn wuute maanaam salaatu fatiha moom rek nga am droit di ko jàng ci. beneen salaatu amuloo droit di ko jàng ci biir wasifa salaatu fatiha kese nga am droit jàng ko moo tax saa maa ngi ne xayru salaatu fatiha lu dul salaatu fatiha laa yëkk fii du doy. minal wasifa di ci wasifa bi duuni xulfin ci lu dul benn wuute mboolem ñooñ tariixa bi dëppoo na ne wasifa noo ko watee beneen salaatu wirdo nag mën nga ko watee beneen salaatu. لولو جرى باي خيل لا بو باخا باخا باخا باخا ووقتها نك وقتو نك المساء موي غون او صباح ولا صبح خمغا او لا واخ او صباح واي دا فا ام اي سيف سو يجي ام مانام وظيفه فكيه يو سلسله بيغا روتيه silsila bi nga jëlee tariixa bi silsila bi wasifa suba ngoon la te yow da ngaa nisir nisir mooy loo xam ne da ngaa ñëw ñu yox la ko nga nisir def ko te boobaa la aw xuraan waxoon rek matal kóllëre matal seen kóllëre yi ngeen fasante parce que baat bi jamo la aw ko bilan xóot xóot boobu noonu dafa nekk loo xam ne ci jamo la maanaam pas-pas bi man nekk pas-pas bi nekk sa jëmm ji ak sa digganteeg sa morom ak suñu borom wala yonent bi bi nga dëggaale dëggaale ak moom ki nga dëggaale li nga dëggaaleeg moom da nga ko war a matal ba mu ma sëkk fekkee ne nag silsila mi nga jëlee comme Cheikh Seydi Hadji Malick nga xam ne moom dafay wasifa suba wasifa ngoon boobaa yow farata la ci yow ngay wasifa suba di wasifa ngoon am na silsila yoo xam ne ci ne dañuy wasifa rek suba wala ñu wasifa ngoon moo tax mu ne awi sabaahu maanaam maanaam man nga koon wax awi sabaahu wala suba walla nga ne awi sabaahu ak suba hmm? waaw ca Sëriñ wax na wax bu mel noonu ca Taysiir min ji ati tiini aw fi diini waaw aw googu bi maanaam waaw la min ji ati tiini wa diini yallaahu jamuuhuma nag wa su la neexee nga ne jamuuhuma maanaam jamuuhuma boole di wasifa suba ak wasifa ngoon fa xasanun moo gën a rafet rabaaxun moo gën a tontu sëñ bi soo ñu la waxee ne la saa yoo xëyee am 5000 francs ak soo xëyee am 5000 ngoon nga am 5000 lu gën ci yow nga xëy ngoon nga am 5000 suu nga am 5000 moo tax Seydi Maalik nag ñu bëri nag dañuy juum nag naan Seydi Maalik moo fi indi wasifa suba ngoon déedéet Seydi Maalik wax na ko te naqar na ko ci Kifaayatu Raaqi ki Ifhaamul Munkari Jaani Seydi Maalik wane na moom dara lu mu sañ a sos ci tariq bi amul tariq bi borom tariq bi la te borom tariq bi kenn la. Sëriñ Maalik nee na ku dul Cheikh na Tijaani mu mu taalibe nga ci biir tariqa bi cheikh rek muy ab sëriñ ku cheikh nag doo imaam tariqa bi benn imaam la am ñi ci des ñëpp ay maamum lan koo gis rek ala qadri jalalatihim ali harazim barada xali tamasini ñoom ibrahima rayaahi ñoom cheikh ma Fuuti ba cheikh Sadaaji Maalim mi ñoom ñëpp ay maamum lan tariqa bi benn imaam la am te mooy cheikh na Tidiane Chérif radiallahu taala mooy imaamu tariqat yi ku dul cheikh nag maamu nga saway te maamu nag kenn du roy ci moom soo ko royee su julli da yàqu ah Cheikh Hadj ma daana wax na sama masala sharia su ma demee bay roy gëm naa tariqa dama koy doxal waaye roy nag yonent bi laa koy def roy ci tariqa si sharia gis nga xamee ni mu baaxee soo demee bay roy yonent bi wala kum fi rasulillahi fi rasulillahi xuswatun xasana yonent bi kese képp dong rek la ñu yàlla royloo waaye tamit tariixa bi tamit benn roykaay moo ci am benn sëriñ moo ci am benn cheikh moo ci am te ñu bëri léegi loolu dañ ko bàyyeetoo xel tariixa bi Cheikh na Tijaan mooy tariixa bi mooy jëmmi tariixa bi. salaatu faati bi ngay dégg ala qadri salaatu faati ak dafa am doole doole ji cheikh moo tax mu salaatu faati am doole. salaatu bi ci jeex si cheikh la de doole ji ci jëmmi ji la nekk. laaj naan ko na ko salaatu faatiha ngën a liggéey ci nekk waaye doole ji ci salaatu bi la nekk wala ci yow la nekk mu ne neexul ba neexul nag waaye sama man maa tax mu am doole kon lépp ci cheikh lay dépendre moo tax soo amul pas-pas ci cheikh loo mën di wirdo ak ku contre cheikh Tidiane ku man di doon loo mën di wirdo nag du dem cheikh mooy mooy mooy mooy mooy mooy jëmmi tarixa bi dafa nekk ci euh, euh, face di waxtaan bu si yàgg mu su Mahdi yu ñëwee dana ray sëriñ si ak ni mu reyee buur yi ñu ne ko waaw baa ñun duñu si boole Cheikh na Tidiane si ayma dana ko indi ci biir téere bi mu ne deet min naa bul fatiha su ñëwee moom imaamul Mahdi lu muy am doole doole doole ci taalibe Cheikh na lay doon te ci taalibe Cheikh yi ci la jàppee tarixa bi imaamul Mahdi la wax su ñëwee ci mujj jamono ci tariixa bi lay bokk kon cheikh kenn du ko tëkkaaleeg benn waliyu xam nga loolu mooy jëmmi xaru jëmmi xaru mooy nga naan cheikh ak diw beneen bi tamit tariix yëpp ñoo yem xam nga loolu tamit erreur bu ko gën a rëy moo tax ma ne la chat tariix bi ci ëpp doole mooy nga dumooy wali yëpp. alaaji sëñ Alim Ba bu Ngumba ba muy war ba muy way seet sa daaj maay dana xasartu anil masaayixi kulla man de gàttanlu naa ci mbooleem sëriñ si man de ki ma foofu sama xol jublu ci moom kenn la muy Cheikh na Tidiane boroom ahlu tasawuf dañuy wax ne asamaan si laa yumkinul aalamu bayna ilaahi ilaahayni maanaam monde bi jomm na munta nekk ci biir monde bi ñaar yàlla xam mën naa nekk munta nekk laa yamkunu laa laa takunu nag maratun bayna zawjayni jigéen mënut a am ñaari jëkkër mën naa nekk mënul nekk laa yamkunu tamit ba tey sayfu bayna ximdayni benn jaas yi mënoo ko def si ñaari mbar mën naa nekk donc tamit laa yamkinu muridu bayna shaykhayni benn taalibe murid taalibe mënut a am ñaari sëriñ benn sëriñ nga mën a am muy Cheikh Tidiane jigéen benn jëkkër lay am. te xas moo tax nag waykat bi ne sëy si naa te dootuma fay su xasee ba sëy si seex nag da ngay seey ci seex jeex ci seex loolu mooy tariq bi mais fekkee ne tariq yi moog yeneen tariq yëpp ñoo yem kon amul sens amara nabiyu imaamuna bi tanazuli li ifaadati al axlaaqi bi wirdi jali fa ajaabahu bi maqaalihi saafi rida fa jazaau rabbi bi jazaayi azali in kuntu baaban li najaati muwaafaqan cheikh dafa garanti maam na ko tariq yi fekkee ne tariq la boo xam ne te amara nabiyu téere la boo xam ne Cheikh Seydi Hadji Malick da liggéey liggéey bu rëy ba pare sëriñ Alim bu ngumba mii may wax sharha na amara nabiyu sharha ko sharha bu rëy sharha am doole man maa ngi defee sharha bi fii sama fii nii ma wax ak yow nii maa ngi sharha bi sëriñ bu ngumba te sharha bi kenn moolu ko ko te yooyu dañ ko war a toppatoo di ko defar di ko mool sëriñ Alim ngumba ci taalibi Seydi Hadji yi mag la bokk sharha na amara amara nabi nag cheikh dafa am ay demande yu mu ci wax maamam demande yooyu nag maamam nangal na ko fekk tariqa bi mook dana ko fekkee ne tariqa yi mook tariqa yi njëkk ñoo yem ñu bàyyi tariqa yi ñu dox ñu topp ci tariqa yooyu rek yàlla rek ngay wut te tariqa ñoo yem lay wutee leneen waaye nag tariqa cheikh la bokkut ak beneen tariqa te ci gannaaw tariqa cheikh beneen tariqa mosu fee so mënu mënu sosowaat cheikh tariqam ci tari tariqa ci tariqa cheikh la yem manam tariqa munul sosawaat ci gannaaw tariqa cheikh ni nga xamé ne yenent munul sosawaat ci gannaaw sallallahu alayhi wa sallam noonu la tariqa ñak a mën a ci gannaaw tariqa cheikh na tijaani chérif li fi mën di ñëw tamit mbootaa nga tudd way tudd tariqa tariqa mom cheikh na fa la teje khatimul moy khatimul wilayati moy waliyu bu mëna yilif tariqa muntu a ci gannaaw cheikh ni nga xamé ne sharia benen bu mëna buñ fi tegaat muntu a nekk lépp yam nag olof nee na ci ñëpp yamee am ñu gedd seen cër dëgg la ñëpp ay julli lan ñëpp nan dajee ci kalimatun sawaabu baynana wa baynakum an laa taabudu illa allah buñ jaamu kenn ku di yàlla waaye nag su deen desul nag ba guddi jot nag ku ne war fanaan si néeg nag sëñ bi jigéen ku ne dangay ngay sa jëkkër dégg loolu mooy jëmmi tariixa bi mais nag tariixa bi nga naan ay ñëpp yam loolu mooy yow wàcc nga tariixa bu yàgg te yëgloo cheikh kenn du yemale kenn parce que yemut ak kenn loolu nag lu jar a bàyyi xel la chérif radiallahu taala anhu yàlla yàlla taas ci barkeem kon ñu yemale foofu suñu darsu tay bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu خاتم القرآن